barki alxuraanul karim ku si jëf ju baax rawit leneen raw na la te sëñ Tuubaa dani woon nañ leen fon nañ leen fonk sañuy nafsu nañ leen fonk sañuy nox ndax valeur gi gën a doon ci valeur doomu aadama mooy waxtoom rawatina ak nooyam kon war nañoo fexe ba nooy buy dugg di yóbbaale ngërëmul sëñ Tuubaa bu tey génne di ko génne te loolu niñ koy maye mooy sellalaat jëmm yi tout tànk yaa ngi waxuma sax tout tànk yu ñuul yi waaye ñaata métti sa ne ci dëkk bi ñett laa ci yor keneen ak keneen yor na ay saali ay ay ay Cheikh Ibrahima rek lañ leen di tuddee aalu nañ ñun ñëpp defe ni tur yu baax yooyu ñoo leen di jàllale ndax ñun war nañoo bàyyi xel ni ëllëg bu ñu sàmmul seeni waajur yii wala ñu sàmm leen ñoom est-ce que ñun duñu toog ba baylaarin yii ñuy wane ci télé yi nii nga xam tey jii ku dugg sa Facebook di nga gis ñuy recruter nit koo xam ni afro américano lay doon wala afrique argentina nga xam ni ñaari teen yëpp lay boole muy métis lay doon ñoom dañ koy recruter ci Facebook ak ci WhatsApp pour ñu leen di defal ay ñu ñu soxla nañ ndax xam nañ ñun sañu der li muy jariñ der bu cher lañ yor ñoom tubaab yi ñu ko gën a xam ndax ñun ñu ngi bàyyi xel ndax mu munta mu ñu doon dem ba jamono gis maam jaara joo xam ne day bay riñ fii ci ñoom tine li nii te duñ ci mën dara aka mën a ne aka mën na ne ndax Sénégal gee ñu dal de am na fa te foofu lañu gën a boofee baax fa la gën a sokkee kon nag ñun ñi ne ci dëkk bi war nañ cee bàyyi xel bu baax kenn ku ci ne te am fi doom am fi soxna yaral say doom bu baax rawatina boo leen tuddee ku baax soxna sale yàlla booreel nag nga def sa kéemtu lay kàttan ba mu tuub ndax loolooy sabab bi loolooy sax l'islam bu demee ba bàyyi góor mu mën a takk ci soxna soo xam ne bokkul ak moom diine xam ni góor mu ëpp xel jigéen ëpp ko kattan te bu ko yoree yor yëlam nu mu ko mën a yenkawale ba mu tàbbi ci di njëkk ko tax a jug waaye dul bàyyi la ngay baylaar yi wala bu ma la neexee ànd ak yow ca bi ca yoonu baylaar ga koo àndal di baylaar yi nag bu amee doom bu juddee baylaar yi te war na nañoo xool bu baax la ñuy def buñ dee dooni murit nañ leen tabaxaat suñu jëm yi te xam ni nag te xam ni nag sëñ Mamadou Moustapha dafa dem bàyyi ñoo bàyyi ñu fekk ay doomam ay doomam di dem ba des kenn sëñ Touba mi fi nekkoon dafa dem bàyyi ñoo ay doomam ay doomam jeex tax bàyyi sëtam ñëw kon leer na ñun ñun ñii dañuy dem ba sañuy dooma fii ne wala sañuy sët sa taat fondement bi nag bu dëgërul kenn ku ci ne bàyyi xel ci dëkk bi defe defe naa ne ci yooyu la jëm liggéeyal sëñ Touba nag ni ma ko waxee bàyyi ma sàmba saa su ne sëñ Touba li koy indi woon ci kaw suuf moo doon fekk lu bon mu baaxal ko la indi woon yonent bi tabax yu rëy yi indiwu ko de fekk lu bon mu baaxal ko moo indi woon sëñ Touba kon defe naa ku ne ci dëkk bi da war a barkeelu ci jëmmi sañ Touba jooju te mooy fexe ba waa baaxal waa dëkk bi sa kéemtalaay kàttan buñ ci xeeb dara ndax lii yeggale mbir mi ci yàlla lay jóge waaye ñun nañ leen sabablu nañ leen tabax kër sëñ Touba gu am doole ay jàngukaay jegewaat doom yi muñël soxna yi ndax munoo takk soxna fekk moom 35 ans wala moom 27 ans yaroo ci diine joo xam ni wax dëgg yàlla at culture boo xam ni lu safaanoog sa culture la ak sa diine nga xëy xëy tey bu mu bëgg bëgg mu ne mel ni maam jaara mun tane de sañu raq yenn Sénégal sax meluñu ko kon nañ leen muñël sañu soxna yi te xam ni soxna soo fi takk mu tuub barki Cheikhul Khadim bëgg laa tax mu tuub moo xam sa dooley poos la. wala sa dooley direct saa soo leen bàyyee nag ñu delluwaat seen diine te yàlla moom ku tuub tubbee ak fayam yéen ñëpp xam ngeen ko kon war nañ leen a yéen a yiw ba koo ci nekkalit nga muñal ko sa kéemtalaay kattan xoolaale ci doom yi nga xam ni maanaam dañ dañ la ko amal te boo leen bàyyee mun nañoo dem feneen foofu nag la ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa waaye mbir mi du ay dajale togg goo xam ñun ñoo koy lekkaat naan goo xam ñun ñoo koy lekkaat puukare goo xam ne kenn ku ci da ngay yeesal déedéet nañ leen fexe ba la sëñ jaloon ci lu baax bu ñëwee gën kaa jël waaye duñ ko wàññi maa ngi jéggalu ci kàddu yu baax a baax luñ ci juum rek ngeen xam ni dañoo bari wax taamuñu xam-xam barki borom Tuubaa Mbàkke